mairie bu Mbàkke dajale woon ay conseillers ngir nattal commune bi ay koppar yuñ mën a doxee ci atum 2019 loolee nag mujj nañ ko amal ci loolu ñëpp ànd téeméeri junni ak ñeent fukk ak ñett yu teg juróomi téeméer yu teg ñeenti téeméer budget boobu nag buñ ko méngalee ak bu daaw ba bëri na ak yokkute gu rëy gu ci am. li ko waral nag mooy nguur Sénégal dafa lëkkaloo ak banque mondiale ak AFD pour ñu jàpp téeméeri commune ak ñaar fukk ak ñett ngir ñu jóge ci ndóol ak jafe-jafe mën a dem ci li ñuy wax émergence loolu tax Mbàkke nag ñu sédd ko ci milliard bu teg juróom million ak ñett biñ ko xaajee ñu def ko ay projet yoo xam ne dafay dafay jëm ci askan bi dafay dooleel commune bi pour moom mën a am doole pour mën a fay ay borom mais aussi mën a demal boppam loolu it biñ ko xaymaa mu ñeenti téeméeri million ak ñeent fukk ak ñett yoo xamante dugal nañ ko ci biir budget bi doole ko ci li nga xam moom lañ prévoiran moo tax mu nekk milliard ak ñeenti téeméeri million Abdoul Mbacké Ndaw mi jiite mairie bi dikkaat ci sabab bu ni mel ngir koppar yooyu buñ sukkandikoo ci ki jiite mairie bi bëri na ay naal ak i mébét yu ñu bëgg a sóobu gannaaw ak bokkam ci projet Pakaseen mooy ñu defar marché Mbacké mooy ñu defar centre commercial bi mooy ñu defaraat éclairage public bi mooy ñu àggale daral bi mooy ñu defar euh, bibliothèque municipale bi mooy ñu defar yoon yi mooy ñu defar assainissement bi mooy ñu jënd ay oto mbalit mooy aussi ñu jënd pelle mécanique pour mën a dindi mbalit yi taata euh, seeni yi nekk ci biir dëkk yi wante it mooy inauguré liñ jot a tabax mu ay dispensaire lu ma ñeent mooy àggale ñetti école yi nga xam ne bëgg nañ ko defar muy Mamour Diarra ak euh, Cheikh Ibrahima Fall ak euh, Cheikh Omar Diop bi ñu defaroon pare wante yi mooy gas teen bi nga xamante ni moom la maam Cheikh Ibrahima Fall daan rootale Serigne Touba dam nekkoon ci biir mairie bi du fas yéene gasal biir pakastan prévoit presque quatre-vingt et quelques millions pour mu jël axe euh, entre Mbacké ba Elton Elton stade ba Elton entre Touba fas nañu yéene quatre-vingt et quelques bu ñu ko ci defee jàpp nañu dañ dinañ mën a sillonner soixante ba quatre-vingt pour cent de l'éclairage qui ci sur la rn boo ko defee li ci des nag c'est en dynamique ñu mën koo àggale année prochaine. xelam jugut ci kim fa wutu woon di Iba te mu wuy ji suñu borom ndax stade bu bees bi sax muy tabax moom la koy tuddee